aja zomgaye Modou Jam Thierry Boy Maroon eh eh eh ah Boy Maroon mooy sàngaay ga suuf waaw waaw Modou Jam Thierry Boy Maroon waaw waaw suma jumul Modou Jam Thierry moo ko daan démb eh, fale ci Fatick aha revanche ou bien confirmation revanche ou confirmation revanche ou confirmation Modou Jam Thierry daanu na Boy Maroon feeku na Boy Maroon daan na Modou Jam Thierry